Je vous remercie. Monsieur le ministre de l'Éducation nationale, directeur de campagne de la coalition Diomaye Président, membre de la coalition, animateur, le grand monsieur qui nous voit tous ces résultats. Madame la Présidente Aminata Touré, superviseur de la campagne présidentielle, Monsieur le directeur général de l'AIBD, membre aussi de la coalition, Monsieur notre ami Mamadou Lamine Diallo. Nous l'avons invité, nous, avons, nous avions invité aussi Monsieur Boubacar Kamara, ak certains qui comme eux étaient d'anciens candidats mais ñu nga xam ne dañu nangu lu yàlla def je voudrais ici avant de passer à nos deux amis Sambou Biagui et maître Moussa Diop euh, le remercier lors de la campagne accompagné de la RTS il s'est rendu au domicile de la mère du président Ousmane Sonko, le Premier ministre. Mamadou Lamine, on a l'habitude de dire que politique amul sentiment mais rafetal nga ko merci beaucoup. Chers leaders, membre de la coalition Diomaye Président, mesdames, messieurs, chers invités, euh, mesdames, messieurs les professionnels de la presse, je voudrais vous saluer et vous remercier d'avoir bien voulu euh, partager cet après-midi ces moments historiques qui marquent les 100 jours, sinon 106 jours pour nous. 2 avril 2024, 21 juillet 2024, 106 jours exactement. Depuis que notre candidat, son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a été installé dans ses fonctions, le président de la République du Sénégal. Élu brillamment dès le premier tour avec 54,28% des voix, une première dans notre histoire politique pour un candidat issu de l'opposition. Il a prouvé seulement en trois mois, on dirait trois ans, qu'il mérite amplement le plébiscite du peuple sénégalais. Naturellement, nous en sommes très fiers en tant que membres de cette grande coalition qui avons porté triomphalement sa candidature et convaincu les Sénégalais de la justesse du choix ainsi que de sa pertinence. Président Bassirou Diomaye Diakhar Faye sagal nañu sigil nañu dalal na xelu askan wi et pourtant ce n'était pas évident tellement les écueils pouvant entraver votre action et celle de votre gouvernement étaient nombreux et difficilement surmontables. Tout le monde en convient. Son Excellence Bassirou Diomaye Faye a hérité de son prédécesseur un pays surendetté avec plus de 15 000 milliards de dettes, soit près de 80 du PIB, dépassant largement le seuil autorisé par les critères de convergence de la CEDEAO. Notre champion s'est aussi vite heurté à l'impatience de nos compatriotes, nos vaillants compatriotes, résilients, mais très fatigués, et dont il fallait abréger les souffrances, notamment le coût de la vie devenu intenable. Son jubal Djoubanti en bandoulière, il a dû aussi faire face à la résistance de toutes sortes de lobbies et groupes de pression qui se nourrissaient du système. À cela s'ajoute une situation géopolitique particulièrement difficile, avec d'une part au plan régional la crise dans l'espace CEDEAO, marquée par le, par le retrait des pays de l'Alliance des États du Sahel, et d'autre part, au plan international, avec les bouleversements liés à la guerre Russie-Ukraine et à la crise au Moyen-Orient, au Proche-Orient. Toutes ces difficultés, et la liste n'est pas exhaustive, permettent de mesurer à leur juste valeur les actions menées avec brio par le président Bassirou Diomaye Faye et son gouvernement avec à sa tête le Premier ministre Ousmane Sonko. Je ne reviendrai pas sur les éléments de bilan relevés dans le film que nous venons de visionner, Weddi Gis Bokk Ci. Je vais juste mentionner les dossiers d'extrême urgence qui ont tous été pris en charge et de manière efficace, outre la baisse du prix des denrées de première nécessité et les mesures prises pour la campagne agricole 2024, les préparatifs de l'hivernage, la tabaski, le pèlerinage à la Mecque et l'organisation des examens et concours. Félicitations, monsieur le ministre. Lolo Sounoutir, parce que vous gérez avec brio le département de l'éducation. Ont tous fait l'objet de conseils interministériels présidés de mai de maître par monsieur le Premier ministre Ousmane Sonko, qui ont permis de prendre des mesures pratiques et efficaces. Tous ces dossiers brûlants ont été correctement pris en charge et sans difficulté majeure par le tandem Diomaye Sonko que nous avons la chance d'avoir à la tête du pays. En plus de ces actions concrètes efficaces, indéniables, nous pouvons aussi être fiers, chers membres de la coalition Diomaye Président, de notre bilan immatériel en trois mois à peine. Très attaché à la cohésion nationale, dépourvu de tout esprit partisan, encore moins revanchard, Son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye à travaillé à réconcilier les Sénégalais. Avec sa posture empreinte de politesse et d'humilité, son calme olympien et en parfaite maîtrise de ses dossiers, il assure et rassure. Chers membres de la coalition Diomaye Président, soyons donc à l'image de notre président. Travaillons dans la concorde, en synergie, en parfaite intelligence pour accompagner au mieux le chef de l'État et son gouvernement dans la voie de la transformation systémique promise aux Sénégalais. Nous avons travaillé jusque-là sans ni trompette. Alfousséni a beaucoup magnifié son outil, mais dans les outils, il y a les TDR où on, qui nous a permis de mettre en place des groupes de travail. Pour ne pas danser plus vite que la musique, nous avons attendu l'approbation du président. Donc jamais nous n'avons été apathiques. Plusieurs groupes de travail se sont penchés sur l'avenir de notre coalition, de son appellation, parce que le président nous avait demandé le 6 avril de trouver une autre dénomination. Vous trouvez là son humilité. À sa nouvelle charte, comme vous le savez, la charte d'un parti d'opposition, d'une coalition de l'opposition ne peut pas être Euh, la même que la charte d'une un, coalition au pouvoir. En passant par sa structuration et son mode de fonctionnement, tout a été passé en revue par les différents groupes dont le travail est soumis à l'appréciation et à l'approbation de Monsieur le Président de la République avant d'être rendu public euh, prochainement. Vive la coalition Diomaye Président, vive le Président de la République, vive le Sénégal. maa ngi nuyu kilifa yi nga xam ne ñoo fi ñëw tey te nga xam ni teguñu sax seen bopp kilifa ñun dañ ni woon rek léegi bu ñu ñëwee ñun ñëpp nañ toog seetaan film yi bu ñu paree waxtaane ko waaye de bala ñuy dem ci lan nga xam ne mooy ba Bassirou Diomaye Diakhar fay ak bis bu nekk ci jikkoom sénégalais yi di ko découvrir ñu bëgg lool ñun ñi nga xam ne ñoo nekk ci coalition Diomaye bëgg lool di ci féliciter le peuple sénégalais ñoom ñi nga xam ne ñoom moom victoire bi ñoom ñoo bëggoon a am victoire ñoo bëggoon a am seen président bu ñu tànnal seen bopp te bi ñu tànnee juumul ci ñetti weer ñu teg wane fi loo xam ne danga naan lii ndax ñetti at la walla ndax lii mandat bi la déedéet mandat bi demagul fenn tey la am téeméer téeméeri fan ak juróom-benn. bi nga xam ne ñun ñu ngi koy fête ñun coalition Diomaye président naaguwuñu nag waaye nag comme que dañu nekk ci réew wax te ku noppi bokkoo ñu wax nag ndax xaaruñu kenn waxal ñu ko donte ni waroon nañ ñu ko waxal boo demee sax ci ñi nga xam ne ànduñoo moom sax am na ci ñoo xam ni ñu ngi moytoo wax ñu ngi moytoo ŋàññ parce que ñooñu ay républicain lañu parce que ñooñu xam nañ luy état parce que ñooñu xam nañ lu ñuy liggéeyee ci état ñu sant yàlla bu baax nag bi nga xamee ni peuple Sénégal ñoo ko jox lu ñu mësul a jox kenn maanaam jóge ci opposition gagné premier tour daan bu bu leer naññ bu amul laam-laamee jël bi kenn dootul miim loolu la def waaye yemul rek ci daan yemul rek ci ba mu toogee ba léegi ànd ak fulla ak fayda ak gouvernement ak premier ministre am ñuy liggéeyal senegal dafa fekk nag bi mu fi laataan ñëw te mënuñu koo bañ a wax de fekk na fi dëkk boo xam ni dañoo nekk ci ay bor yu méttee méttee méttee métti bor yoo xam ni kenn xamul du ñu toll ki fi nekkoon di leb rek di dem te leb bi ñun terewuñ ko ko woon de ndax ñun dinañ leb waaye dañ ne leb bu am beriñ leb buy jur dara leb boo xam ni boo ko investiree dina mën a am fu mu nekk loolu nag bi ñu tànnee suñu président ngeen tànn seen président tey mën ngeen nag sagu ci waa Sénégal yéen waa Diomaye président Moustapha Guirassy mii le ministre de l'éducation moo nekkoon président wu euh, jiite campagne bi nekk directeur de campagne madame Aminata Touré ànd ak moom di superviser campagne bi man ma nekk présidente coalition bi keroog ba ñu génnee projet bi la ñu ni woon ñun de ñun waa coalition Diomaye président keroog bañ ñu présenté euh, projet bi la ñu ni ñun ñëpp ànd nañu nekk benn baat bëggatuñu dara kenn ku ci nekk jàpp ni yaay Diomaye kenn ku nekk dangaa war a fal Diomaye nga def ko sasoo ko sa bopp muy sa sasu bopp pour nga fay fal Diomaye tey tànn boobu ñu doon tànn loo waa Sénégal waa Sénégal xam nañ ne ñun naxuñu leen ndaxte président kat sagal nañu te nag sigil nañu te it wax dëgg yàlla xelu askan wi dal na xelu askan wi dal na ci ñi bëgg Sénégal nag laa wax ndax du toujours nga daje ku bëgg Sénégal toujours nga gis koo xam ne poosam rek a ko ñor te moo ne yombul woon yombul woon de daje na noo jafe-jafe yu ne ba mu ñëwee ci dëkk boo xam ne wax na leen ko moom luy faral sax di jàmbat moom xamul luy jàmbat parce que wax na ko ndax xamul luy mënula nekk xamul impossible du jël tam benn pression waaye nag ah dégg yi bari woon na de waaye yàlla nga koy suturaal nag muy jéggal dégg yi ndax li mu fekk ci bor bi wax naa ko wëlbatiku mu dem ci ay nawleem yi nga xam ne ñoom la bokkal su région bi mu metti lool nga cay moroomam te bi ñu fekk see Sénégal xam nañ ni ñooñu day xam nañ lan mooy CEDEAO des peuples ñu ngi koy doon a xam waa Sénégal taxaw leen tàccu leen ah ñoom it ñu seetlu ko xam ne ñii kat génnoon nañu waaye sopp nañ jomaay te jomaay taxul woon ñu génn ñu jiital ko yal na ko ci yàlla defal ndam ñun nag dañu am ay champion suñ champion muy Bassirou jomaay Diakhar fay ak Ousmane Sonko bi ñu ñëwee déglu nañ réew mi bi ñu dégloo réew mi gis nañ ne réew mi yàkkamti nañ lenn lu tuuti li nga xam ne moom lañ dese woon ci muñ mënatuñoo muñ ndax fekk na réew mu xiif fekk na réew muy xool xaalisam ñu di ko gaspiller te joxuñu ko ko ñu yàkkamti lool ku leen dimbale ñu dégg ko biñ ko déggee la ñu bar daldi taxaw ci luy wàññi mettitu réew mi méttitu nit ñi te loolu li koy waral moo di li ñu am ñu sakkanal ko li koy waral mooy bañ a yàq li koy waral mooy lu naqari woon nit ñi ñu jubal ko loolu moo tax mu génnee jub jubal jubbanti yore ko nag ci fépp fu mu dem yóbbu ko fa looloo tax jub jubal jubanti tere na toog muy dox ku doon toog muy dox amoo la neex ndax dañuy jub jubal jubbanti ku doon trafiqué amoo la neex ndax dañoo nekk ci jub jubal jubal ku doon dund ci ranxooñu askan wi ñu naan ñu naan ranxooñu baa baa doole muy muy cimetière bu buur jeex na gasi baana jub jubal jubbanti looloo tax mu gën a dalal xelu nit ñi loolu teewul senegaal xam ngeen ni du benn îlot boo xam ne dafa beru situation géopolitique bi wax naa ko léegi neexul waaye am nañ ci yaakaar na ko waa Sénégal yépp ñaan ñaanal fekk itam situation bi loo xam ne suñu yoon newu ci muy guerre Russie door a jóge ci Covid door a jóge ci li nga xam ne moo xew Proche-Orient waaye li ñu waxoon rek ni Sénégal ak Afrique sax dañoo war a góor góorgóorlu ndax dañuy dañuy dañuy subir loo xam ne seen yoon nekku ci loolu moo tax approche souverainiste bi nga xam ni ñoom moom lañ am bëgg koo jubal ci mbay mi ba nga xam ne dinañ toog ba dootuñu ci kenn dootuñu wuti fenn dara dootuñu jëggaandi dara ñun dañ leen ci encouragé moom ak premier ministre am te ñun coalition bi lu luñ ci mën dinañ ko ci jàpp. kon difficulté yi bëri na lool waaye teewul mu surmonté ko ba tey lii ñu wone ci film bi ak li ñu leen di wax nga xam ne mooy bilan immatériel bi. te mënuñu ko jeexal ñu wax leen ko moom de Sénégal seen xel dal na ci ñaar ñi ànd muy président Ousmane sonk premier ministre ak rakkam di le président de la République di Bassirou Diomaye Diakhar Faye dossier yi nga xam ni moo gënoon a jafe te diggante bi ñu ñëwee dossier si ni temm taxaw ci kanamam muy wàññi njëgu dund bi muy ndax dañ ni woon kenn mënu koo wàññi waaye moom nee na xamul luy impossible muy campagne agricole bi presque jour ba mu bañ ko falee sax taw na benn weer moo doxoon digganteem ak moom waaye yàlla ñu ciy suturaal tey boo demee ci àll bi ñoom ñoo lay wax ni ñu bëggee ci ni ñu jotee semence yi ñoo lay wax prix engrais bi ni mu wàññeekoo waalo waalo yi sax nee nañ ma ren dañuy wàññi ceeb bi ndax prix engrais bi ni mu wàññeekoo kon nawet bi. wax dëgg yàlla teel nañ ko teel tabaski gi ñëw kenn jàmbatul macha allah te dañ di woon mënul nekk waaye ñoom dañ ne mën naa nekk pèlerinage bi aju màkk gi ah suñu seetaanoon liñ fi defoon ak wax dëgg yàlla keneen doon yóbbu kon pèlerin yi ba tamxarit duñ ko duñ ko ñëwee senegal waaye gouvernement bi taxaw tem man loolu seede naa ko Ousmane Sonko téléphone am jógul ci noppam. di seet ndax avion yi ñëw nañ ak ministre des transport moom it ñu ngi koy félicité gis nañ moom itam ni mu doxalee transport bi ci tabaski gi yooyu yëpp ak li nga xam ne examen et concours bi te examen et concours ñun ñëpp ci coalition bi mu le ministre dañuy toog di déglu ndax ku nekk kat foo yebal sa waay da ngay bëgg mu daan te xam nañ ne di nga daan parce que ni nga ko teel a jëlee rek dal na suñu xel yaa ngi concerté wu. yaa ngi waxtaan tey gis nga jàngalekat nag ful la ñoo ko fi ëppale ci senegal ku wax ak ñoom d'ailleurs léegi la mais bu njëkk partenaires sociaux yi liñ leen tudde woon mooy syndicats yi ak ñëpp ñi nga xam ne da ngeen di waxtaan ak ñoom te bu ngeen waxtaanee rek di ngeen juboo bi fi nguuru Macky Sall ñëwee rek lañu xam ay amical ak yooyu mais syndicalisme ci as ci ci éducation la nekkoon bu njëkk bi nga xamee ne même parti unique la les syndicats d'enseignants ñoo daan porté les préoccupations des populations dañ daan def plateforme partager kook les marabouts partager kook ñëpp ba nga xam ni ku ci mel ni yaarax mu gaynde ma bu waa SUDES mësaan a def grève ñu dóor leen blâme wala ñu dagg seen salaire moo leen di fay te loolu ba lu ba lu yàggul rek bi nga xamee ni ñoom màggat ci ñoo yore syndicat bi diggante soixante-onze ak soixante-seize ba ba ñuy dissoudre des moom moo doon fay salaire ñooñu ñoo doon ñi nga séqal tuuti lañ la ciy wax parce que na wax dëgg yàlla def nañ éducation syndicale kon boobu chance la waa Sénégal am ci ñooñu nga xam ne ñoom lañ jox réew mi ñun nag ñu di ko sagoo di roy ci moom ndax président boo xam ne li problème am rek mooy na réew mi ànd biir élection biir campagne bi yëpp loo wax rek mu ne nañ ñaan jàmm am ba léegi jàmm jooju lay woote yàlla bañ na ko ba yàlla defal ko sutura keroog bi nga xamee ne dañ koy fal muy taw loolu signe la jàmm jooju yàlla na continuer parce que loolu la bëgg fayantuwul wax na ko moom du fayantoo mu ngi dimbal mu ngi fexee ba sénégalais yépp juboo sénégalais yépp ànd te mu am taxawaay boo xam ne nag bu ñëpp naw la ñun de kër diine gu mu dem ñu ne ñu yar bi ak teggin gi ak wàcce boppam mu ngay jéem a seet ban man nu muy manifesté woo ci ci ci kilifa yi ba wan leen di leen doom bu seet si waajuram la deful boppam président boo xam ne day def visite kon loolu teewul mu maîtriser ay dossier teewul mu xam li muy def waxoon naa ko kër bi ñuy clôturer campagne bi mbuur nee naa leen énarque la te daawul daw jàng xam na ko mën na ko te ñoom ñu ngi koy def te boo gisee seen duo boobu moog premier ministre nga xam ni ñii dem nañ à bon école xam nañ ko mën nañ ko te ñu ngi koy def ñun nag ci suñu wàllu bopp ñun waa coalition Diomaye président bu doon suñu sago ñu mel ni moom ah jafe na de ci présidente bi lay commencé sax jafe na mu mel ni Diomaye waaye nañ jéem rek nañ jéem rek mel ni Diomaye liggéey ci àndandoo am benn objectif bu ko defee yoon bi nga xam ne ñoom moom lañ bëgg a dem mooy transformation bi ñu bëgg transformer ko système bi yàlla mën na ñëw suturaal ba ñu def ko ñu ngi doon liggéey nag leeral nag du tontu yaakaar naa ne bu ñu xoolee plateforme bi gis terme de référence gis groupe de travail yi nga xamee ni liggéey nañu ñu xam ne liggéey nañu waaye nag kenn du jiitu sa kilifa. liggéey bi dafa am ku ñu ko santoon muy la président de la république le 6 avril dajale ñu ca méridien président moom la ñuy jox liggéey bi liggéey nañ ko ba pare groupe de travail yëpp ànd nañ ci te bu soobee yàlla liggéey nañu ci euh, profilage ñi nga xam ne ñooy responsable bi parce que daf ñu ko laajoon liggéey nañ ci charte bu bees bi liggéey nañ ci structuration bi liggéey nañ ci mode de fonctionnement bi te yooyu nga xam ne ak comme niñ ko waxee woon tur wi ndax ci euh, bañ a gis boppam ñun jomaay ji génne wuñu woon mais moo ne turu jomaay président bi nañ ko changé pour wutal ko tur bu bees jox nañ ko ko groupe yëpp liggéey nañu ñu ngi ko koy jox te incha allah lu mu ci wax balaa yàgg dinañ leen dajalewaat waat nii ñu dajale woon waxtaan ci déglu ko mu ngi leen di gën gërëm di leen gën a reconnaître seen liggéey di leen gën a gërëm di leen sant incha allah yaakaar naa ni suñu àndee nekk benn boole suñuy xol dinañ ko mën a jàppale bu baax te yàlla mën nañoo dimbale maa ngi leen di gërëm di leen sant dëkk bi xat na tey dimanche soir waaye teewul ngeen tenir jëw ñu bokk gis li ñu gisandoo waxtaane li ñuy waxtaaneendoo incha allah yal nañu yàlla taxawu ba li ñu bëgg yépp mu defal ñu ko ba mu yegg ci suñu njaboot jërë ngeen jëf Merci beaucoup, Madame la Présidente. Euh, voilà. Merci pour ces mots. Je pense que ça a été très clair. On va demander voilà, à un